làmb ji le 4 mai la waaw le 4 mai incha allah. mais incha allah le sa bopp. lu mu ko waxoon démb rek laa koy waxaat tey waaw moom bëreem fattal ma foofu la waaw bëreem méttiwul quoi. lay arnaque mënoo si dara arnaqueur bi da lay dal mënoo si dara. day neexal géem neexal sud <laughs> dañoo dëggal boppam parcelle da ngaa séddoo. parcelle Cambérène Grand Médine Grand Liberté 4 Kër Massar Yëmbal Boune Casamance Touba ñëpp teew. waaw moom meer la man paa laa quoi. bu ñu jëflantee dina xam ne paa yi paa bee gën a dëgër bu meer. amul la kat di nga am arrêt boo xam ne boo boo freiné doo doon départ. waaw tey li ma yëg mooy li ma mus yëg rek ci làmb waaw Père Mafal Père Mafal loo ma wax gis naa ko maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér Père maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér. ñëw si combat waaw Alioune tey ni mu bëree. waaw nii rek la mën a bëree Alioune Seye 2 la xam na ni dafa tardé si làmb. gumba nag mën nga koo wommat mais li koy may sarax moo koy may boppam te Alioune Seye mi ngi si tànk yi gis nga gis nga buñ naxante gis nga làmb ku sonn rek di nga jariñu xam nga lan moo bon ku soxor man laa gisul laa gisul mu jëm mais bu loo nekk yéen ñëpp jàmm Alioune bu déggoon ay waxu nit bàyyi na kir waalo bu yàgg bàyyi na fépp bu yàgg mais Alioune Seye Alioune Seye man jikkoom ma neex quoi barke alxuraan waaw Alioune bi papaam gaañoo laa ne ko man mun maa man ko yow amul aw ma loo ma desalati ci àdduna parce que ñëpp dañoo toog waxal ko benn baat. waaw jaadu yof. waaw jaadu yof la ñuy wax jaadu yof fii jërëjëf mbokki internet yi ñu suivre sur Kewel Info di leen nuyuwaat nag bu baax a baax gannaaw nag Quench ak ki nga xamante ne moom mooy Alioune Seye 2 bëre mu nekk combat boo xam ne ñu ngi ci doon xaar Quench kii di Père Max Mbargane nekk en même temps Lansar di entraîner yi nekk en même temps li moom mooy manager Quench dañ koy bàyyi bu nuyoo mbokki internet yi ñu suivre à mi ngi maa ngi lay fay di sant yàlla bu baax julli ci yonentam bu tedd bi gërëm suñu ñaari waajur di ñaan ci réew mi du yàgg nag. ndax Alioune Seye yaa ko signé. waaw maa ko signé waaw. d'accord combat bi mu nekkul combat boo xam te ne daaw fu doon xaar Quench tey bu ñu ñëwee côté préparation bi gis nañ Quench indi état physique mais ci bëre bi fam ku ñu doon xaar Quench lan nga ko gisee. non juum na ci bëre bi saxal na xeex bi jël ko daanu noonu rek la demee lam moom boo juumul doo daanu waaw. Euh, Quench consigne la bëree wala moom moo bëree nii wala consigne la boo xam te ni. non la mais xam nga làmb li la ñu conseillé dara sax nga def leneen. daan te su boobaa duñ duñ la duñ la sikk mais xeex bi mu topp mu sax moom conseil conseil wuñ ko ko waaw mais lam boo waree daanu parce que jéem na ko jàpp ay yoon nag Alioune Seye bañ tere ko jàpp bi mais ci biir xeex bi mu jël ko croisé menton daanu loolu mooy làmb. déggoon nañ ko ci waxem mu ne dafa bëgg Alioune Seye dox ko ci xeex bi moom mu jël bari bi ñu gis dafa mel ne li mu waxoon loolu la jëfe no boo waree daanu rek da ngay teggi lépp lu lay may ndam làmb moo tëddee noonu mais ku xam ne. depuis premier combat bi muy jàng bëre la gëj a daanu ba ren mu daanu. bi mooy ñaata défaite am. deuxième défaite kooku dañuy sant yàlla xam ne. deuxième defet premier combat bi muy bëree moog 10 ah. 000 problème mooy premier combat am ci la daanu ba ren muy doog a daa ba bii muy doog a daanu waat. kon ma toog ëpp na 10 ans. kooku day sant yàlla rek defarwaat ñëw ci course bi. Ah. noonu la demee. Alioune ni mu bëree nan ko ko gisee. waa teg na ko ci yoon. moo moo ko mag bëree ñëw na xañ ko jàppoo bi xeex ak moom. mu jël ko mu door ko mu daanu. Ah, mais tey Père Max dañ koo gis mu toog plateau. Père Max ci euh, moom ah, par rapport mm, kii bu daan bëree mbëri dañ ko daan gis moom moo tey moom mooy tegtal nangam mel noonu tey gisuñu Père Max. ne gisoo ma demal nga xoolaat wala dangaa nekkoon ci leneen. non comme déplacé wu comme. dama am entraîneur chaque jour ci dernière minute yi laay ñëw bu ñu demee ba pare ma ñëw waxtaan même bu ñu defee quinze minutes àtte. ci laay dugaat wax ndax coach bi nga teg moom mooy gérer loolu mais man dugg naa wax ak moom ndax ménager la directeur technique la li ma war a def yëpp def naa ko. ok instant bi fu mu jëm Alioune Sèye non talaguñ loolu ndax ko am défaite bu rëyee nii ak combat bi niñ ci amee woon yaakaar mënaguñu wax fu mu jëm. kon da nga am déception. bu metti parce que xalaatoon nañ day ñëw rek daan. Ah, mais yàlla du ma la bàyyi comme que da nekk si yoon te daa am ku lay xaar. Hmm. muy calaf bi nan nga gisee ay surprise da nga ko da cee am. waaw bi ci gën a fees daal mooy bu caatu yarax bi. Ah. parce que tey bu doon loterie ñu bëree perte. ndax ñu bëri dañoo defe doon caatu yoo fa man ne mu daan ko avec la manière. Mm. Doudou ak ki nga xam te ne moom mooy waa dañ naan l' expérience face à la jeunesse. Mm. mais Garga su ma doon moom moom it duma ma def dara damay téye xale bi mu wit si mm. ndax xale bee war a wit moo gën a doon xale mais làmb li may wax rek soo waree daanu cuula ngay doon. waaw tey nan nga gisee journée bi. non macha allah promoteur bi kontaan na amateur yi kontaan nañu du ma ne ñëpp kontaan nañ. mais ñi am ndam kontaan nañ ñi amul ndam kontaanuñu. mais Jacob Baldé ak Alboury perdu. waaw man xalaatoo naa ne Jacob war naa mën a daan. non non non boo seetloo bi ñu waxee laa ne Jacob damay gis muy daan poids lourd yoo xamante ne ci mbappat yi ku mu ta daan amul man loolu man mënu ma a këm ne ñi naan du combat moo ko man man man su ma gëm loolu. d'accord mais Alboury ni mu bëree est-ce que noonu la woon ah nee boo waree daanu rek toujours ma wax ko boo waree daanu cuuna ngay doon baax na jërëjëf. na ci yoon. ok numéro ci loolu ñu ngi sant Serigne Saliou baax. yaa ngi am jàmm. ngi sant Serigne Touba bu baax. Alioune Seye Quench. daam loo ma wax. ci suuf nga ma ko waxee rek mais waxoo ma nga ma interview sax man la ragal féete day xañ a wërsëg. Mhm. lamp yi fay nga ne ma Alioune Seye de Rédan parce que loolu laa gis loolu la ñu yàlla wan. ban heure laa koy seetee lii sama seeti sa téléphone. dinaa ko di rappelé. non nga koy xool ni nga wax nga ma ko. waaw ah, kon jeex na ah, ah, bonne heure laa koy sati lan laa ci def félicitation Alioune Seye 2. ko. yokkal sa lumière tubaab preuve la bëgg. laa koy sati ne ko. ma ne ko lan félicitation Alioune bonne continuation. doo loolu yàlla la eh, loolu yàlla la. Eh, kañ la la woon kañ la la woon. yàlla mooy maye. yàlla li na ci moom defu ko ci mala yi ci doomu aadama yi la ko def. yàlla suñu borom moo ñu may war ñu ñu gis ci. sant ci yàlla di di féliciter ñi daan di encourager ñi daanu. sant yàlla bu baax a baax ñaanal nañ ko yàlla bu baax a baax. tey du bisu am ci moom bisu ñàkk la woon. nii laa ñëwee këram ma taxaw jàkkaarloog moom ci télé laay waxee ma ne ko Garga dama gis Doudou Sané dóor la nga kaw loolu kese laa gis ci làmb ji mais si biir jaxasoo bi bu fekkee bëree yow yaay daan ci bëre bi mais kaw bi rek moom jaaxal moytul xeex bi. wallaay barki Seydina Mohamed nii laa ko waxee xam nga Garga du ma ko fenal mbër la barki Serigne Saliou ah bi dafay def lu garaaw. man gis naa benn combat nga defoon ko noonu. mais est ce que bi. tey bu bu fekkee dafa changé. lan moo tax ma tànn ci combat moom kese ne ko félicitation direct. boobu da jàpp ne même bu ci génnoon ay sarax tamit. dama ne la lam parce que lam dafa am lu ma jaraloon mooy it combat moom Alioune Seye 2 dafa am luñ dund muy Serigne Touba. ñëw nga sama kër ma wax la ko. nga tàllal micro ma ne la man Alioune Seye 2 laa faral te maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla may maa ngi dem géej te ragalu ci itam bi mu waree bëri dama wàccee ci kaw turim bi dem ba ci mi kaay wax ak moom ne ko barki Serigne Saliou da ngay daan may ñu fan yi am na ay combat yu fi nekk donte sax duñ ne laay kan mooy daan ak nangam mais am na ay combat yu fi nekk ci mel alpha yu sunduur franc ak ki nga xamante ni moom mooy Bombardier di ñaanal yàlla rek di ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñoo tëgg combat yi ci suñu kanam yàlla defal leen ci réussir total yàlla defal leen ci jàmm mbëri parcelles yi war a bëre yàlla defal leen ci jàmm may leen ci ndam kenn ku ci nekk li gën ci yow yàlla na la ko yàlla defal barke Seydina Mohamed di ñaanal sama doom Petit Lo bu baax a baax waaw dama koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam incha allah no du Ndiaye Tine de non Ndiaye Tine moom Ndiaye Tine mooy Ndiaye Tine mooy maa koy félicité bu baax ci combat bi vraiment dafa sonn ci làmb ji ba démb ci guddi bi ñu ñëwee dama ne ko lu mën a xew Ndiaye mu ne ko combat bi du booy ñàkk ak lu métti métti nag di nga am ndam incha allah ndax bu fekkee yàlla li may woon nangu ko di nga am ndam te bi ma taxawaatee ci mukaay bi noonu laa ko waxee moom muy dégg bul fooyee làmb ji bul yàqal làmb ji da nga koy daan te ci côté saako yi la. Caatu Yoff lu ko daan gàllaaj la wala. Caatu Yoff ñi ma toogaloon ñoon Aziz laa toogaloon ñoon Aziz Ndiaye laaj leen <laughs> dama ne leen ñëwul tay de gisuma ndamam de barki Serigne Saliou ñun duñu la ñuy wax. laa mujj le 4 mai la waaw le 4 mai incha allah. mais incha allah le sa bopp. lu mu ko waxoon démb rek laa koy waxaat tey waaw moom bëreem fàttal ma foofu la waaw bëreem méttiwul quoi. da lay arnaque bi da dal mënoo si dara. day neexal géem neexal sud dañoo <laughs> dëggal boppam parcelle da ngaa séddoo. parcelle Cambérène Grand Médine Grand Liberté 4 Kër Massar Yëmbal Boune Casamance Touba ñëpp teew. waaw moom maire la man paa laa quoi. mu ñu jëflantee dina xam ne ne paa yi paa bee a dëgër maire. amul arrêt la kat di nga am arrêt te arrêt boo xam ne boo boo freiné doo doo départ.